بسم الله الرحمن الرحيم ندم كني بندب قليل بي ننا نقولون جانج دم بصبي تلي نقول نبتي وما أغلب لو قمني أبينا فتلي ابنكو من حيين تبهو تلي دندو لبلو بو تلي دندو وما يتين walla boo ci loo xam ne lu dee la min xarnin lala moom béjjën la mu waas min wala sax yax yax la wa silfin wala mu nekk we silf dégg nga mooy we dugal fasak yu mel ni fay wexim fasak yu mbaam dool la ci dugal mooy silf wa suufurin ba tey walay tekki hmm. waaye yu mel ni ki gëléem ak juri kër ko moom hmm. ak gënaar yooyu hmm. wa aajin ak lu mel ni ki bëñëb ñay muy aaj wa xasabiritin ak bant dunq ba waxoon naa leen ko démb ne ñett xaaj la la am bant dunq bi moom sobe la kawari donq bi mooy li ñu koro moom dafa laab li ci diggante bi am nañ ci wute wa xasabirisim sobe la dégg nga wa jildin naka noonu der bi ñu ne xanaa mu wulluñ ko mu ne walaw dubiqa donte kon tax wulleef na ko sobe la sobe la waaye nag yombaleef na fii ci der bi mu laqan islaam mayee na ci ndigal wuruqita fii mu laqan mo xam dafa joge ci lu dagan a lekk wala ci luñ sib mooy mu laxan bi pour def ci lu melni ni ki dana ko wax inshallah wa ruqisa fihi mu laxan ci jeyal ci lan nak dama ci kanam nga qaddam ko mu ne fii yaabesin def ci lu waw lu mel ni nga ci duggal wala dugub wa ma'in wala nga def ci ndokh der bobo islam mayee na ci ndigal nga def ko mbuus lu bëgg wax def ci mbuus def ci ndokh wala wala yu mel nonu mu ne ah illaa min xinsiirin nga demaat ci gannaaw ndara mu tukkee ci lu mel ni mbaam xuux daganut nga ne ko nag ndox ma kañ lañ ko ci def wala dugub wala lu wow la mu ne ba da dab xixi gannaaw ak wullim gannaaw buñ ko wullee bu noppi moom der booba islam jàppandal na def ci lu wow lu mel ni dugub la wala ceeb la wala def ci ndox dégg nga islam ci ndigal mu ne nag wa fiya nekk na ca muddawana karaatul aaj sib bañam ñay mu dawana moom nekk na fa ne takk ba ñam ñaay sim nañ ko takk moo xam ci julli la ak yu mel ni julli hmm. ah sim nañu ko ba nag mooy lam yu jigéen ñi takk yooyu lam yu mag yooyu di këlan-këlan ko ah mooy ba ñu ñaay la lam yu wurus yi ñooy jaayu de mooy yéen lam yu mag yooyu jigéen ñi takk ko ba ñu ñaay la dégg nga takk ko di julli moom sim nañu ko ne wa tawaquf hmm. li nga xam ne mooy gàkk hmm. am na ca mu dawana booba ci imam malik mi nga xam ne mooy sangi-sang yi ci lan la gagoon nag fii kay maxti ci darab mbaam wala darab barkell wala darab fas bu ñu wulli ndax imam malikin njël benn masabam bi dafa waxoon ne dara bu ñu wulli lu wulli ko du ko tax a laab gannaaw ga mu ne buñ ko wullee laab na gaa yi laaj ko nag mu ne tekk tekkaral tontuwul loolu moo doon sanama sërëbam bi der bi wulli wulli ba du ko tax a laab gannaaw ga nag mu ne buñ ko laabee buñ ko dana laab gaa biñ ko laajee nag mu taxaw kooku mooy tawaquf nee na bokk na ci sobe yi ba tey wa man ni yun man ni sobe la wa mas yun ba tey sobe la wa wad hun datti kese juraxul dara sobe wasa diidun detti wànjar moo jur rax deret sobe la mhm. ruto batu farjin tooy tooy pay mhm. euh, sobe la mhm. boo ci loo xam ne daganul nag boo ci lu daganul bu dee ci lu dagan la nag moom dafa laab fekk du lekk sobe nag fekk du lekk sobe wa damul ma soowun dara ji ñu puufu moom it sobe la wala min samekin donte ci la boo tax da nga dagg jën wi dara jën a taq la loolo sobe la mm-hmm. osubaabin wala mu booxoo ci weñ sobe la dara ji nu cas puufu mm-hmm. sobe la jàngu nañ safra mm-hmm. may la mooy dafa laab waaye wasaw daaw moom dafa nekk ndox mu ñuul kooku moom day sobe la dégg nga sobe la dafay ñuul wala mu xaw a nax ne war a ma dina gis yi doomam sobe morso bi dafa sobe nga taxal ko doom ba sobe la wa duqaanoo sa xar sa sobe la dégg nga lépp la am sobe moo xam ñax la moo xam morso la boo ko taalee doom ba sobe la sa xar sa sobe la ubalun nee na saw sobe la waasiratun dem joor sobe la fu mu tukkee nag min aadamiin boo ci doomu aadama bu ma xaramin akkali bu ma xaramin kay ak ci lu xam ne dafa nekk luñ xaraamal di dem joor boo ci luñ xaraamal sobe la bu ma korooyin ak ci lu ñu sib sobe la wayen gisu dana dana sobewu nag dana sobewu kasiru taamin ñam wu baree baree baree bari ma een te ñam way yeey di wër lu mel ni ruy la dana sobewu ci lan bi na gisin ci sobe suñu dugg te waxtu sobe duggee ci biir ñam wa xam ne ñam wa day wëndeelu bu tàngee dafay dagg mel ni ruy la nekkoon ne na ñam wa soppeeku na sobe dégg nga xal la moo xam dafa nekk sax mu nekk lu néew waaye lu sobe su bëri nag lañ wax ne moo gën a yell dégg nga ne naka jaami ko sobe soo xam ne dafa nekk sobe way sobe way ka jaami din comme ñam way kay moo way xam nga ñam nee na nag comme ñam xam ne dafa way waaye sobe sa moom dafay daw ci biir ñam wi moo tax mu ne ina am kale ina am dem jàpp ne na sarayaanu daw sobe sa mooy safaan bi bu njëkk ba sobe si moo way ñam bi moom mooy dox di wër kon ñam wa yëpp sobe la bii ñam bi moo nekk lu way mel ni kii daxin wala mbaxalu saalum yi mel noonu xam nga dafa way waaye sobe si moom dafay dox ci biir ñam wa sobe la wa illaa nag dem nga xam ne demeewul noonu sobe si dawul ñam wi dawul kon lan mu ne kon fa bi hasabihi nañ xool kem na su beesu toll ak ñam na bare nga dindi sànni nga dindi sànni dégg nga ne wala yaturu euh, du laab saytun dawlin goo xam ne xoolite dañ ko mélancé demal ci bind ñaareel bi bi na gisin ak sobe bi na gisin ci baatu baatu juróomeel ba mhm. nee na dawlin guñu mélancé sobe dootul laab wala amun wala ak yàpp woo xam ne tubee ko toggeef na ko bina gis ci sobe laabul wa saytoonun ak saytoon muliha bu xoromeef ko bina gis ci sobe laabatul wa baydun nen boo xam ne suliqa toggeef na ko ba mu ñor bina gis ci sobe nen ba sobe la wa faqaarun ak ndaa lu mag a mag mag ndaa yi def fukki paan bi xawaasin ak sobe soo xam ne di ca nuur ca biir di yey ca biir nee na kooku génn ca ndaa la mm. lu mel ni deret la wala sax la luy mandi mm. ma dugg ca ndaa la mm. sobe la mm-hmm. moo tax ñëpp war a jàng sariya mm-hmm. gis nga ñi defar ndaa di lakk ndaa yi dee ñax mi ñuy lakkee ndaal yi dafa tooy mm-hmm. xam dañ koy lakk ndaa yi dañ dañu lakk ñu xaw a ñuul bu dee kii liggéey ndaal xamul sobe li mu leferee ndaal yi dafa am sobe li mu ko lakkee ndaal sobe la abadan moo tax tere ñëpp ko war jàng dégg nga moo tax yu faqaarun ak ndaalu mag bi xawaasin ci sabet soo xam ne dafa nuur ci biir di yeey ca biir moo xam saw la moo xam deret la moo xam luy mandi la sobe la wuyun tafon def na jëriñoo nag bu mu tan na gisin ci lu xam sobe moom dañ ko jëriñoo lu am sobe ko jëriñoo waaye nag laa na gisin nag sobe moom ci boppam kenn du ko jëriñoo lu am sobe mën nañ ko jëriñoo ah lu xam nga li mu bëgg a wax daaba daaba ji yore ay góom liñ koy fajee am sobe def ko ci góom yi dara na ci islam d'accord na ko moo tax ma nag fi xayri masjidin waaye dañ ko jëfandikoo ci jàkka waa aadama yin ak doomu aadama kon pétrole ba am sobe duñ ko taal ci jàkka sondel ba am sobe duñ ko taal ci jàkka ñi ba am sobe doomu aadama du ko lekk sadaqallaahu al-aziim wa sadaqa rasuuluhu al-kariim